man Saalum Saalum laa. Macky Ablaye Wade moo ko gënoon a ëpp xaalis moo ko dàqoon maye. te Ablaye Wade jënduma bu ma doon jar xaalis su ma dugg pale tey pale moo ñëw si man. parce que am na doole bu ma yor. xeex naa. barki Maulana Cheikh Ibrahima Niass bi ma yaakaar àdduna ak àllaaxira yow est-ce que duma la may exclusivité sax nga ñëw dama waxé sa chaîne déedéet duma ko duma ko wax tay mais gis nga. gis nga bi pale di pale ba tey ñun biñu duggé duggee pale li wax Macky rapport musu ko ko wax fofu la yem.

barki Maulana Cheikh Ibrahima Niass rappeur musu ko wax Macky ci àdduna coow li nag bëri na. mais comme show bi la ñu. non mun non mais c'est normal on ñi bind ak ñi commentaire ñu wax on parce que comprendre ñu man na gars yeeg may wax noonu noppi bàyyi gars yi wax looyee man du ma noppi parce que sama image da si joué man gars yi dañu am respect si man dañu am cër si man te bugguma ñu bugguma di leen noo bàyyil gars yi wax du ma doxee noonu sama der du ma bàyyi ay gars yi di ko tilimantu si loo xamante ne nii amul man naan damay bàyyi gars yi wax loolu mbindeef mënu ma tere wax xanaa ma dee du Tafa Dabrance bi te bi ñu fa yóbbu woon du kenn ku ñu fa yóbbu ku ma mën a noppiloo munul nekk man damay wax. na gars yi déglu samay page naa génne naa expliqué lépp lu amoon si audience bi ak Macky. d'accord te man du ma fen parce que samay nawle laa àndaloon. samay nawle laa àndaloon. donc yi gars yi di wax nag maa ngi dégg. mais man dinaa génn wax lu Sénégal yëpp dégg. incha allah duñ la yàgg